Take it down. Assalamualaikum mbokku Senegal, Assalamualaikum mbokku jullit ñi rawatina yéen xaadir yi ku waajul waaj naa ku waaj àndal ak man waaj bés du tóot borom lay tollal ba tax na Abdourahmane Ndoye Seck borom tabala moom mi xew ci jamono di ànd ak groupe sallallahu alayhi wa di leen di woo bés bu màgg bi lee di grand tàkkusaan bi nga xamante ne moom la ñuy ci Kër Massar kaas di di le 10 mai 2024 bu ko kenn wuute waaye nee na bés amna borom de am ñu ko de parrain marraine boobu nee na kullu nafsin zaariqatul mawt ma ne ko loo ci bëgg a wax mu ne dinaa ci rendre hommage ñii nii nga xamante ne kenn du leen fàtte ci diine l'islam ma ne ko kan la doon mu ne ma sëriñ alwali aydara dinañ ko ci rendre hommage El Hadji Papa Diop dinañ ko ci rendre hommage Ousmane Tewu dinañ ko ci rendre hommage Ibrahima Seck dinañ ko ci rendre hommage Badara sekk dinañ ko ci rendre hommage Ndiaga sekk dinañ ko ci rendre hommage Mame Matar Diagne dinañ ko ci rendre hommage Siaka Masali dinañ ko ci rendre hommage ko ci rendre hommage soxna faatu ture dinañ ko ci rendre hommage soxna Kumba Ndong dinañ ko ci rendre hommage soxna Jëmm dinañ ko ci rendre hommage madame Haydara dinañ ko ci rendre hommage waaye nee na bés boobee mu ngi ciy woo bépp doomu aadama rawatina képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ci biir waaye bés boobu li ci gën a neex mooy Abdourahmane Ndoye Seck borom tabala dina ci feggool seen nabiyee Cheikh Bamba Seck ñu daal leen bégal boobee bés jërë ngeen jëf ba beneen yoon jërëjëfe boroom Ndiassane